Uh, islam ko. alaaji nag da nga tey tey na tey tey tey alaaji maa ne tey da te xëy jël da nga xëy jël lu bon. jël lu bon jël lu bon wala nga jël lu bon lu may jël lu bon. mu <laughs> ñaari muskalaf mën nañoo maye seen bopp. dëgg loolu dëgg. waa eh, mi waa dëgg lu ma bu jigéen ñëw. dina am dooy mukallaf. waaw di maye boppam. waa mi waa eh, koy maye de. <laughs> doom yi doom yi dañuy maye seen yaay d'accord ci lépp léegi nag waa ji mooy ñëw ci biir kër gi am na mu taxawee <laughs> dégg nga doom yi gis seen bopp mooy li ma la expliqué léegi nii yow takku yaayu jàmbur woo du sarbet. oui ma. tegoo dara sa kaw li ngay waxee ni bu la paay bu la paay déggee. paay nga xam ku jëfewul ni sa baay eh. daal matu la baay. déedéet matu laay ku taxawul ni sa baay ni daal la taxawoo matu la baay. taxaw gu njëkk de mooy fanaanoog sa ndey. waaye taxaw nga sa déedéet waaye taxaw kay. fanaanoog sa ndey taxaw nga doon baay de. Eh, kay déedéet eh, matu laay. déedéet kenn ku mën a taxawee sa taxaw sa taxaw yu lu baay kenn mënu ko kenn mënu ko te bi fi alaaji fi nekk nii day fital day day day muy fit yenn paa yi. yenn paa yi nekk ci ci garam place quartier yi bëgg lu yomb. am soxna di tëdd ak moom rek ngeen fanaan benn lal dafa tax mu nekk soxna. dañuy daal di jënd dañuy daal di jënd ay yére yu bees jënd ay xeetu lakk ko la ñu bees di commencé di cuqi cuqi. waaw yow ban cuqi cuqi am leen fulla de. ban cuqi cuqi. yéen ñooñu yéen na ngeen am fulla de. waaw benn góor yoo xam ne dañ leen tappal étiquette jëkkër rek duñu jëkkër ko sax. kon lan lañu. yow ñu xutba la. ci farata yàlla sunna xutba eh, nan ko xutba waaye matuñu ko. farata yàlla sunna sunna waxuma laak nag papa ndegam jëkkër moo gën am nañu góor ñoo ko. bàyyi leen leen caaxaan yi. Eh. xale yi ci kër yi lañu war a waxal ak paa yi ci kër waaye jigéen ñi bu ñu leen sonal ñoom ñoo gis ba bëgg ba ñu may leen responsabilité solo waaye waaye déglul déglul waaye eh, ay déglul waaye ngay xale yow say bàyyi nga toogal <laughs> ah def nañ erreur ba ma la teelee am gis am na gis gis de waaye yow waaye yow tey li wax tey li wax moom la àndal de gis gis nga kii sa vision se limite ici à Kampala <laughs> il est comme l'autre il est comme l'autre l'autre l'autre l'autre sa vision se limite à Diamniadio mais mi ala yi seetlu nga benn kii elle a une vision courte nga naan ma ay kii kii kii vision vision. vision la arrangé wul. vision baaxul. yi ma arrangé yi ma arrangé mais eh, continuons alaaj heure tribunal bi tëj na dégg dégg Diouf Sarr. Diouf rek waa di ñëw Diouf Sarr ñëw sama fit bi ñëw sëf sëf kii bokkul ma leen léegi ñun nit ñi anti stress stress bu Diouf Sarr ñëwee rek dix heures di koy laxas wala docteur Xemes Ngom. Ah, wala Aloyse wala Aloyse nit ñi dañoo dem ba xam leen léegi. ba docteur Bousso. ñoom ñëpp dañoo war a changé sa kanam yi nit ñi xawoon. Ah, saa yi bu ñu génnee Bousso commencé ñëw. kan Bousso. Bousso man. mosul ñëw di. non non non ñoom ñëpp bu ñu ñëw nit ñi dañ leen xàmmee léegi journaux yi. léegi ñoo indi kenn ku bees ñooñu bu ñu leen gisee xel yëpp ci corona la jëm léegi alaaj. Uh-huh. Hmm. léegi léegi. Uh-huh. ñii di takk soxna yi. alaaj uh-huh. dem ci kër yi. Euh, ngir xale yi respecté leen. war nañoo am na ñu taxawee. Hmm. waaye am na ca ñoo xam ne dañ ca dul xaar dañ ca dul xaar nga respecté leen de déggoo suñu xarit bi nga doon waxal dem waaw na ah, ah. su ma jabaru bàyyi bu ndaw bu ndaw ba sax bu dof dof loon bu dugg cim góor man de li ma ko doon dimbalee dama koy ba ndax wëlliwu ah, yàlla seex ndax wëlliwu yàlla wi nga xam ne moom la ko séqaloon ba mu jógee fi loolu la wax de ndax wàllu yàlla wi nga barke alxuraanul karim billaahi kilifa kenn du ko ginnaaw dëgg la ñooñu waa Bawol kii lañu tamit billahi kilifa kenn du ko ginnaaw mais nag alaaji alaaji kilifa bàyyi fi ko nekk koo xam ne mi ngi doog a mat ba pare nga ne kenn du ko wutu. yonent bi ki mu fi bàyyi amul ñeent fukki at. sallallahu alayhi wa sallam. yonent la ah, nga wax yonent la gën di mindeef. dañuy dañuy dañuy xeeñtu nag ay njeexitalam. yow waay laa ilaaha illallah fii de mënu leen wax ba ku tudd kenn reer ci ginnaawam. warasatul anbiyaa yi. mënu leen wax ba ku tudd akramahum faqad akrama allah wa rasuluhu. yonent bi nee na borom xam-xam yi. wàcceel aaya ba saf alaaji ñoo fi wuutu yonent bi. wàcceel aaya bu la neex teral leen yéen man yonent bi teraanga yi loolu mënoo ko fee dindi. billahi yàlla non non mënoo ko fi dindi. wàcc naa yëpp. dañuy doon soxna yi de. doon doomay doon doomay doon bàyyi dañuy doon soxna yi doon bàyyi bàyyi la ñu fi ñàkk fay doyoo. bàyyi bàyyi léegi kon kay kon léegi kay nañ tëral benn waa ku génn àdduna. yow jamono jàmm jigéen la jëkkër ji dootul amati soxna. mantu lay jamono jàmm kenn du ko doon. ah déedéet waaw kay léeral ma uh, communiqué Mouhamed. kenn du ko doon ku bëgg loo doon nga dem doon ji ci. jëkkër jàmbur nag. jamono jàmm kenn du ko doon. jëkkër jàmbur waaw léegi lan mooy loolu alaaj. ah jëkkër jàmbur kay doon alaaj jëkkër jàmbur la. waaw ah, ah, waaw ada la waaw ah, la alaaj defal naa nag alaaj non non non alaaj kon jigéen daal dafa war a toog daal islam islam ci boppam bi mu def islam bi mu def alaaj mais moo gën a complexe muy koo bokkal ndey ak baay islam may na la ko doon dañ koy laaj waaw déggoo may na la ko waaw waaw waaw. waaye ngor nanguwu ko de. waaw de waaw waaw tilim na tilim na de. waaw doy na waar. salte na de waaw dama ne la comme que islam nangu koo xam ne yéen a bokk ndey ak baay. man de bu ma kenn dénk doon fanaan noonu. man de bu ma kenn dénk sa kër. doon téyu ma kenn këram. yàlla xam na ko. bu ñu bokkee ndey ak baay wala baay wala lu ñu ma téyul ma kenn këram. ah man de loolu laa wax moom. man de ah. moom dëgg dëgg moom ku ma bokkal ah, ndey ak baay wala ma bokkal yoon ndey wala baay. wax ko ba tàyyi de. ah déedéet déedéet téyul ma kenn këram kooku moom seexlu naa dëgg dëgg dëgg dëgg ah. mais am na ñoo xam loolu ñuy dund dañoo yàkkamti yow man day man day man day jéeg gii sama mag ji ba fi daal nee naa nee naa sama mbokk daal. wallaahi bëggu leen ñu ñun daal ñu teg loxo ca kër ga rek. waay waay waaw waaye nag lu yow sa kilifa. waay yow hmm, waay yow xam ne yow moo nekkoon sa. sa wasila sa wasila. sa wasila waay yow di la ñaanal suba ngoon wane ginnaaw. waaye waaye yow daal sa paaka fanaanal yàkkamti ku dem bokk fi. ah ah islam terewul ko nag. islam terewul ko. nga nanguwu ko <laughs> tilim na. waaye dañoo bëgg lu yomb kay waaye dañoo bëgg ñoom li li am li am yow sa kër amoo amoo fa dépense bu mag yow yow yow yow yow yow sa kër yow sa kër billahi yàlla xam dara matul yow yow dara matul yow yow yow laaj duma rey billahi sa kër dara matul léegi yow ki la ëpp teranga ëpp la sutura ëpp la xam-xam dàq laa jàmm yàlla gën laa yiw dem non Dakar gii li fi nekk kenn mën ko lijjanti kii nee na Imam Samba Diallo nee na ah. nee na mi ngi vidéo bi ku ku takk. jabaru da ngay torox. da ngay torox. billahi wala azim. te boo moytuwul sax du la raw. non sama jàll alma ndeysaan ndeysaan. te boo moytuwul sax du la raw ndeysaan yàlla yàlla bëgg dem ak ndeysaan lañ koy jébal ba ku bëgg xam-xam. ah am na yenn waliwu yàlla yoo xam ne alaaji dëgg dëgg fa yàlla daal bàyyi fi seen i yëf daal a gën. xam nga kuy wàllu yàlla alaaji. waaw inna awliya allah laa xawfun alayhim wa laa ku nekk ci ak rafetal. ak jubal di jaamu yàlla ba jóge fi wàllu yàlla nga nit ñu baax ñooñu nag alaaji la jabaru kilifa est que doon na ah, <laughs> mais paa yi nekk fii fi loolu ñaanali seen paa yi wala wala wala wala wala ñu bëgg ay takk suuf nga ñëw luyee leen fay leen ñu dem ñaanale la <laughs> dañ ci alaaj dañ ci <laughs> ku fi door sa sa sa jëkkëru sa jëkkëru ndey jëkkër dafa amul sa jëkkëru jàppal ne sa bàyyi nga dóor bàyyil dóor mën ngeen a mer mën ngeen a baax na boo dóoree sa jëkkëru yaay tamit bu guddee sa yaay koy dàmp rek baax na lu leer ah ku koy dàpp. yéen maire yi yow leen de. aywaay chauffeur taxi bii nee na le 22 avril bii passé dafa am ku mu jëlee Sandaga yóbbu ko kaas ba mu fàtte fa benn mbuus bu def ay yére ak ay dàll 556 75 80 la koy woo 77. d' accord ok. El Hadj maa ngi Mohamed ma ci communiqué boobu waaye dimbali ma rek. suñu xarit bi suñu xarit bi tabax stade yi nu mu tudd. Ah, bay Faye bay Faye waaw ah, Mbaye Faye waaw ñu ngi koy nuyu waaw eh, eh, eh, kii nee na fukki at la am mi ngi dëkk Grand Médine dafa daal di réer Issa Fall la tudd koo gis rek na ko woo ci 77 093 709 36 39 ok c'est bon baax na yàlla na yàlla dolli jàmm ci biir yu mel voilà gis nga dossier bi bu ñu ci wax it a génn duñ jubóo dóor moom mën naa ma ne du ma jubóo yéen yàlla na yàlla dolli jàmm ci biir bàyyi jàmm bu mu fi dóor de kuñ ku fi dóor ku fi dóor sa baay am ko dee leen dem bu fanaanoog sa ndey daal sa baay la waaw bu la matee baay doxalin bi kay mooy tam mat la baay ok waaw baax na nekk leen fii naan da ngeen dóori dégg nga yàlla na yàlla dooli jàmm ci biir réew mi yàlla ñu yàlla sutural yàlla yàlla jàppale yàlla ñu yàlla aar yàlla ñu yàlla taxaw mbas mi la yàlla ñu yàlla jëlee njaay seen amiin amiin waaw kay acca di baa ngi noonu moo nekkoon ci xarale gi nag mantulaay ci bu ndooy laay maxtaar a ngi nii sama doom ji nga xam ne lu ma wax mu faas ah. miin maaka miin mi noonu mu noonu mun sor jóob mi nga xam ne kon ay dóori la jël nag léegi mel ni police man moo ma jaaxal moom ñu doo paay waaw ah, baax na ana kan la dendal sa tukkutee dëkki borom membre yeeru or ba ca Médine bandi Hachim bandi Khouré Sëriñ Ahmed Aïdara Karara monsieur le maire de la la ville de Guédiawaye Simon ngi nii dugg si parce que yéen di taxaw nag taxawaayu Abdoulaye Diouf Sarr <laughs> di leen jox kon dig daje altine incha allah